exposition bi nag euh, bi moy 9e édition ñuy taxawal exposition bi làmboole it euh, jumaa ji comme niñ ko nim ko waxee ci titre titre bi moy maarat xawla jaami al kabir bi Touba euh, boo fi ñëwee da nga fekk ñu exposé fi jumaa ji depuis sëriñ bi ba fim toll ni ba situation bi instant bi ñu wax la sëriñ bi lim di def Cheikh Amadou Moustapha Cheikh Amadou Fadel Cheikh Abdoul Ahad Cheikh Abdoul Khadir ak Cheikh Salih ak Cheikh Mawlana Bara ba ci ak Cheikh Sidil Muxtaar mbakki fi nekk tey jii di Cheikh Mouhamadou Mountakha ayyadahullaahu wa nasara euh, bu yooyu yëpp da nga fekk jumaa ji yan jaar waay la jaar ak tolluwaay yooyu nag ba mu tollee yan yan situation la nekkoon biñ ci jógee it euh, kenn ku ne dañuy jël ñu leeral sa dund avant ñuy dugg ci liggéey yi nga def ci ci ci jumaa ji boo commencé ci sëriñ bi da gis ni ñu exposé jëmmam wax ay jaar-jaaram taarixam ak yëpp. biñ ci paree wax moom ba liggéey la def jumaa ji eh, buñ ci paree Cheikh ñu moom dañuy wax moom mooy kan eh, doog indi li mu def jumaa noonu lañ ko toppee ba ci eh, sëriñ Sidine Moxtaar bi nga xam ne moo fi mujj ñu ngi jël jëmm yu nga xamante ni jëmm yu mat mat a lañ ci yoon wi muy soxna Jaar soxna Fatimatu Dia di taawu sëriñ bi ren moom lañ indi comme thème boole ko ak Cheikh Cheikh Mouhamadou Cheikh Mamour seigne Mamour Diarra borom Sam eh, mom tamit ci eh, tam ren tam tam yi tànn ren pour gessu ci pour dindi ci ay leral ci la bok naka non it eh, Serigne Touba ak dañuy def chaque année dañuy jël ben tombe bo xam dañ koy waxtaan ak nit ñi wané wane feñal ci degginu seigne bi ci mbir moomu ren nak ñi ngi jëlone khidma te bañ waxe khidma ci niñ ko déggé bokkut ak ni ko sëñ bi déggee ak ni mu ko doon dundee ni ko doon déggee bu yàgg dafa mel ne bi dafa indi euh, xidma boppam euh, daal koy pratiquer noo xamante ni dafa raar euh, raar nu ko lool ba fes ci lool ba mu kolewu ci turam waaye it nekk ay ñoñam ñu koy dund bu baax a baax. bu ko defee loolu ci ab tënk mooy exposition bi biñ ñu dolli ci nag daayira bi ko liggéey muy moo daayira Moukhaddamatoul Khidma bi nga xam ne moo yor jumaa ji ak armeel yi ak li wër jumaa ji bu ko defé lolou moy exposition ñom daayira bi moom wax seen jitt ak ñom ñoy ñan ak kanen ci su ak seen i ak fan lañu gëna concentré wu ci liggéey yu ñu def. exposition bi rek mooy seen activité yoo leen def wala amaan ay conférence yoo def nekk magal gi wala ci biir gi wala ay activité def exposition. comme ni nga xamé xamee bi daayira Moukhaddamatoul Khidma moom dafa am ay bankas yu xaw fasanti ko eh, ñun bankas bi ñu féetee mooy bànqaas bi ñu tuddee natu asxafiya lañ boobu mooy dox ci wàllu tasaare xam-xam ak eh, yaatal ko ak di ci gëstu boo gisee laataa màggal di ñëw dégg la daan def ay conférence def nañ lu mat juróom benn conférence yoo xamante ni dañ ko doon waajalee màggal ñu ko tuddee conférence màggal ginnaaw bi it ñu indiwaat exposition ngir nit ñi nga xamante ni ñi ngi ñëw tamit mën a am lu ñu yóbbuloo waaye it waa dëkk bi it mën a am luñ dolli ko waaye it ginnaaw bi it danañ def ay ay ay yeneen ay yeneen activités yoo xamante ni day jubal nit ñi comme day gindi nit ñi ak di leen xamal ak di leen euh, yee ci ni war a nekk juma ak yu mel noonu liggéey yi feeñ daal mooy conférence yi ak exposition bi yi feeñu nag mooy yi nga xamante ni personne bi ñoo koy def ci biir juma ji ak li ko wër